Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah yi ñuy déglu te dañuy seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu su ngeen jàkkaarloo ak ñun ci jamono bii ci pàkk bu sell bi jàkkaarloo ak sang bu sell bi Serigne Cheikh Mbacké Lo xalifa Serigne Cheikh Ngaabu mu feggoo ak njaboot gi feggoo ak magi taalibe yi seen xel dana dem ci bis bu màgg ba di bisub alquran di ndigal lu bàyyi ko woon ci fali lu Mbàkke ñëw ci Serigne Cheikh Lo Ngaabu muy màggalu ñibbisik Serigne Touba xaadima rasul ci géej gi. bis boobu nag muy ndigal lu bàyyi ko ci Serigne Touba Serigne Muntaqa Mbàkke xalifa général kulu murit mi ñëpp di ñaanal fan wu gudd lool. wu ànd ak wér yaram ñëw nag ci Serigne Cheikh Mbacké Lo xalifa Serigne Cheikh Lo mu war a doon altine ñaar fukki fan ci aw kori yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril deux mille vingt quatre ca Serigne Cheikh Mbacké di ko yegal mbokk yi xarit yi soppe yi wëllëre yi am di jàmm yi bàyyiwul kenn di sàkku ñaan nag ci mbooleem ay kilifaam yépp moo xam muy njabootuk ma Massamba moo xam muy njabootuk Serigne Falilou Mbacké waaye di ko yëgal képp koo xamee ni si yaa ngi setoo ci soxna Isa ndax moom ñoom ñoo bokk benn wàccuwaay ci bis bi looloo waral ñu teew fii ci kanamam fas yéenee jébbal kàddu gi Serigne Fallou moom Serigne Cheikh Rama mu fas yéenee yëkkati kàddoom ci turu famille bépp bu ñu àggalee jébbal kàddu gi Baye Ndiaga Ndiaye mu yëkkati kàddoom ci turu taalibe yi bu ñu àggalee Serigne Ram Sarr mu yëkkati kàddoom ci turu njaboot gi nekk bitim réew bu ñu àggalee Serigne Omar Dieng mu woo waa administration bi bu ñu àggalee nag Serigne Khalil Lo yëkkati kàddoom ci turu Serigne Cheikh Mbacké Lo xalifa Serigne Cheikh Lo kon ñu ñëpp ñu teewlu Serigne Fallou Lo moom Serigne Cheikh Rama mu yëkkati kàddoom ci turu famille bépp. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu bu baax di turu sunu kilifa gi toog muy Serigne Cheikh Mbacké Lo xalifa Serigne Cheikh Lo ñu di ko ñaanal bu baax mu yàgg fi lool sunu kanam te sunu borom yokk ak wéram ñu nuyu ci turam kàddu yi nag. kàddu yi fàttali rek la day fàttali moom mënta ñàkk ndax kenn ku ne xam na ne bis bi bu bu dëgmalee rek sëriñ bi baaxoo na ñu toog ci wetam mu fàttali bokk taalib yi ñu ko bokkal ñépp ak bokk yi nga xam ne ñooy bokk yi jegeñaale yi waaw yi nag ñuy jiital sëriñ Mamor Mbacke xalifatu sëriñ sàmba sëriñ bi nee na mi ngi ko koy yëgal di ko yëgal sëriñ Dame Bale Lo di xalifa sëriñ Mouhamad Lo Issa sëriñ bi mi ko yëgal di ko yëgal sëriñ Moustapha xalifa Cheikh Ibrahima Lo sëriñ bi mi ngi ko yëgal di ko yëgal sëriñ di mayloo xalifa sëriñ Amsatu bokki ñu bokkal soxla Isa yëpp sëriñ bi nee mi ngi leen yëgal bis bi di leen wax ne bis bi nag seen la ndax noo ko bokk kon nag sëriñ bi nee na muy ah, am fas yéene bokk ak yéen ñëpp ñu ñaan yàlla sunu borom ñu ci jàmm ci barkib sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul di soññ ñi nga xamante ne bii nag niñ ko baaxoo di waxee mooy ñi nga xam ne ñooy waa ngaawu ñi nga xam ne ñoom ñooy séntu gan yi di leen dalal sëriñ bi nee na mi ngi leen di soññaat bu baax a baax ci ñu am pas-pasam nan ko daan defee jamono bu nekk muy fas yéene séntu gan ñi ca dalal leen te defar kër yi seetal leen yaatal xol yi defar lépp loo xamante ne bii ne yaakaar nañ ne lii ci mbégteem gan la bokk rek sëriñ Cheikh Mbacke nee na mi ngi leen koy fàttali te di leen sant bu baax nag ci weesu woon ndax taxawaay yëpp rafetoon na kon nag mi ngi mi ngi ñaan yàlla suñu boom defal ci tawféex ñëw dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn alhamdulilahi rabil alamin te di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ci barkeb sëñ Tuubaa asalaamaaleykum bokki taalibe yi bokki jullit yi bokki adduna bokki Sénégal bokki Afrique rawatina jullit ñi waaye taalibe murit yi ñi tàmbali kàddu gi nag ci ndigalul sëñ Cheikh Mbacke Lo ibnu sëñ Cheikh Lo Ngaabu di ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke yàgg fi loolu te wér ak sëriñ Amdi Moodu Mbend Fall xalifa général Baye Fall bis bii nag bu toogee fii ñu jàkkaarloog nun ci écran bi ñu dend ak jëmu ju ñu war a xam ne bisu yoonu murit wépp wépp moo dikkati muy ñibbi si Sëriñ Tuubaa Mbàkke ci géej gi noo ngi ñaan saa boroom loolu yi ci borom ñaanoon mu nangul nu ko doole weeru ko yu ñu génn barkib Sëriñ Tuubaa képp ku fa ñëw lépp loo ragal sa borom dàq ko lépp loo ñëw di sa borom jox la ko ñi ngi woo ñëpp nag bàyyi bàyyiwuñu kenn fépp fu ab murit nekk rawatina daayira yi bu kenn des nañ soññuwaat te gën a feddliwaat suñuy laxasaay te xam ne amuñu lu bis bii ndax ñibbi sëñ Tuubaa ci géej gi lépp lu waay am ci yoonu murit ci ko jëlee ndax bu dikkutoon wala iyaasu billaahi kon nag bu dikkee loolee mbégte la ci ñun moo xam ne mii lu nu am lu nekk war nañ ko cee def suñu yitte yëpp war cee jëm suñu kàttan gépp war cee jëm ak suñu rafetal na ñëpp ñëw lu waay mën ci jàng alquran wala xasaayit te jëmu jooji tax mu def ko ñaanal ci sëñ loo Lo nga moomee dem ak Cheikh Fadel mi ko ko joxoon ñanal suñu jawriñ ji moom itam mu gën a yàgg ci taxawaayu liggéeyub sëñ Bamba bi ci tool sëñ Cheikh Lo Ngaabu te nu ànd ko ak moom kon bis baa ngi noonu yi ñaar fukki fan ci aw kori la di ñibbu si géej gi waa ngaabu it loolu sëñ bi daan wax rek yéen moom yéen a moom bis bi génn néeg yi wàcc lal yi bale kër yi teral gan ñi bijjanti leen teeru leen bu bu bu bu màggal gi yeggee sëñ bi ñaanal leen yéen ñëpp loolee ñuy ñaan ngeen jot ci rek loolu moom ñaanal nañ ko bu yàgg sëñ Seex Ngaabu newoon na wowut ko man wowut ko am ku mënut ak ku amut la woo ku fa ñëw loo ñàkkoon yàlla nga ko am lépp loo xayee lii ragaloon ko yàlla dem lépp loo te mënoo koo ñàkk boo fa dikki na ko saa borom defal doole sëñ Bàmba moom ñibbi si géej gi kon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala maa ngi siyaare sëriñ Cheikh Mbacke Lo xalifab sëñ Ibrahima sëñ Cheikh Lo Ngaabu di yëgal sama mbokki taalibe yëpp nekk bitim réew fu waay nekk bitim réew maa ngi lay yëgal bisub sëriñ Cheikh Lo Ngaabu sëriñ Cheikh Ngaabu nag. suñ ko waxee ñun ñi ñu tuddee émigré ñëpp war a xam sëriñ Cheikh Lo Ngaabu ndax kenn ku ne jaar nga moom béréb muy sëriñ Cheikh Lo Ngaabu moom Cheikh Ibrahima Lo muy bisum ñaar fukki fani kori gi bi ko Cheikh Mouhamadul Faaral Mbàkke joxoon ne ko nag woowuma ci ku am woowuma ci ku man ku mu laajte defe naa ne ñun ñi ñuy wax ay moodu moodu nag kenn ñoo xam sëriñ Cheikh Lo Ngaabu bis boobu nag ñoo ngi koy woote ren nag mi ngi tombeek ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru tubaab ñoo ngi siyaare ñëpp di woo ñëpp ñu kenn di woo nag waa dëkk bi ma dëkkër yëpp ci Espagne ñu kenn di woo waa Espagne yëpp waa France yëpp di woo it waa Kër Baay Mor Sow ndax dañ di taalibe yoo xam ne ni ñu ràññeeku lañ ci sëriñ bi maa ngi leen di woo di leen soññ maa ngi ñoom a fi rek ndax fii lañu waroon toog yàlla def na nekkuñu fi ñoom itam maa ngi leen di woo di leen ko fàttali di fàttali waa réew mi waa bitim réew yëpp bisu màggalu sëñ Cheikh Lo Ngab gi di ñaan sëñ Cheikh mbaak kilo mii mu yàgg ko taxaw bu yàgg wér am ak wér ci bàkk bi suñu Seex Ngaabu mi nga ma amul lu may moom suñu Seex Mbàkke loolu yàlla na nga wér bu déwénee yàlla nañ toogaat fii defaat ko ci barke bi suñu Seex Lo Ngaabu ndigalu sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides yéen yëgal le grand magal de Ngaabu édition 2024 ñu ngi koy amal ren lundi 29 avril 2024 ca Ngaabu ñoo ngi ci woo son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République Sénégal di ci woo l'ensemble de son gouvernement di ci woo autorité yëpp plus particulièrement le gouverneur de la région de Diourbel le préfet di département de Mbacké et le sous-préfet de Ndam ñu ngi ciy woo monsieur Abdoulahad maire de Touba Mosquée di ci woo monsieur Galoba maire de Mbacké di ci woo monsieur Mor Anne Gueye premier adjoint au maire de Mbacké di ci woo monsieur Demba Diouf maire de Dalangabou di ci wow Mass Dieng di doom ci kër gi di ci woo képp ku di taalibe képp ku di soppe képp ku di jullit ñu ngi lay woo ci màggal bi di ñaan nag Serigne Cheikh ngaaw mi nga xamante ne mooy ki waral bis bi suñu borom yokk ay leeram te di ñaan Serigne Cheikh Mbacke mi nga xamante ne moo di xalifaam yàlla na fi yàgg téwér ci màggu bisu màggal gi ñuy waajal màggal gi àttan na lépp ñuy ñaan Serigne Cheikh Mbacke Lo yàlla na fi yàgg téwér màggu Serigne Cheikh Lo mi waral bis bi ci mag bis bi itam parce que wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. di wax ci kàddu sëriñ bi di ñaan sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na ko fi yàlla yàggal tam ànd ak wér sëriñ Cheikh Lo sëriñ Mbàkke yàlla na ko fi yàlla yàggal tam ànd ak wér sëriñ bi mi ngi leen di nuyu lu bari di leen ziyaare di leen fàttali rek ndax bis bi moom fàttali lañ koy def ndax yaakaar naa ne ñu ci baree bari miin nañ ko te it lii daa mënta ñàkk waaye kon sax du am ndax kenn ku ci ne bañ waree yaa ko njëkk a soññee ci ñun ñi nga xam ne fii la bopp bi ne bopp bi nag sëñ bi nee na mi ngi ciy woo ñëpp rawatina ñim ko bokkal muy njabootug Serigne Cheikh Lo Ngaabu ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy ànd mbàggal gi boobaak léegi depuis bi fi Serigne bi jógee xaddi wuñ découragé wuñ arrière wuñ daanañ gis fii sax tey sëñ galas waaye tey dafa am ngànt mu leen fi teewal waaye nag benn la moom nañ xam ne daal màggal gi seen màggal la ñoo sëriñ bee ko bokk kon bu loolu jàllee it mi ngi ciy woo taalibe yi rawatina ñi ñuy tudde ay daayira ndax nee na tey dafa am lu mu ci def mosu koo def mosu koo tudde kenn te màggal gi sax xañ na demewul noonu waaye nag sëriñ bi nee na ren dafa am loo xamante ni moom yëfi boppama nee na ren taalibe yi la ko tudde mboolem daayira fu mu nekk nañ xam ne sëñ bi nee na ren yéen la tudde màggal gi kon nag daayira yi màggal gi seen màggal a ngoog yéen la ko sëñ bi tudde ren bu loolu jàllee ñi ngi nuyu ñëpp di nuyu nag mboolem jigéen ñi ci daan sonn ñi ci daan teew ñi ci daan def seen alal ñi ci daan def seenu ñaq seenum xel sëñ bi nee na mi ngi leen di sonn fànn fàttewu leen bu ko nekk rek mënoon nañoo lim turam waaye xaju fi kon nag mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñu dugg caag jàmm génn caag jàmm di wax ne it ne ko sëñ ba daan waxee bis bi attan na loolu ni ngeen ko waxee léegi ndax wax ngeen lépp bis bi sëñ bi bu ko daan woote nee na sëñ Fallou dane ko booy woo wool ku ñàkk te bëgg a am ku am tam bëgg mu dolleeku ku am la koy dàq tam bëgg koo raw ku am lu muy dàq te bëgg koo jot te jamono jii it yaakaar naa ñëpp am lu mel noonu wala dañ ko ëpp ëppalante waaye ku ci nekk am na looy dàq wala loo bëgg kon nag ñun ñëpp nañ ko bëgg waajal doonte mënuñoo ñëw it buñ àggee ci bis ba it ku mën a ñaan na nga ñaan wasalaamaaleykum wa rahmatullah déwénati jërëjëf jërëjëf sëriñ Khalil Lo kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bis baa ngi noonu woote baa ngi noonu sëriñ bi nag nee na njàngum alxuraan mi lu ko yitteel la ba tax na ma ngi koy yëgal mboolem daaray kaamil yëpp ku ne xam na ni Serigne Mbacke Lo moo daan jiite njàngum alquran mi noonu la koy jiitee ànd ko ak mboolem ñi nga xamee si ñoom la ko daan àndal nee na ma ngi ko yëgal itam waa tund bi mboolem commune yi nga xam ñoo nekk ci département bi bàyyiwul benn commune rawatee nag dëkk yi nga xamee si ñoo wër ngaabu mook ñoom ñoo bokk benn wàccuwaay ci bis bi di ko yëgal kuy mbokk di xarit di soppee di wólëre di am di jàmm di ko yëgal mboolem transporteur yi itam képp koo xamee si wólërew seen Cheikh Lo ngaabu nga woon wala nga mos a jëflante ak moom dara sëñ bi nee na ma ngi la ko yëgal tele ciy woo bis bee tam sëriñ bi nee na ma ngi koy yëgal mboolem organe de presse yi di ko yëgal ñi nga xamante ñooy waa sante di ko yégal waa sécurité waa sapeur pompier bàyyiwul kenn jàng alquran la ak xasida ak bernde ak waxtaan sëriñ Fallou Ndiaye bu xombal nag moo koy fanaanee jàng ba bët set ni ko baaxoo defee sëriñ bi ma ngi séntu ñëpp di sant ñëpp te ñaan ku ci teew yàlla faj si ajo ci barkab Serigne Touba barkab Serigne Cheikh Lo Ngabou wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. naaw fekk nañ ko daaw fekke ko ren ñu ne alhamdulilah déwéniti ay déwén tàmbali ko ci bisimilahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin màggal ak deux vingt quatre Rafah TV une de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer